maa ngi leen di nuyu waaye ñuy jël ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi ne ci kaw di ko tàmbalee ci al oustaz Ababacar Diop di mbay Diop al imam di ci tegit Cheikh Ahmed Tijani Sarr di am mbégte lool ci jataay bi ni mu demee waaye yaakaar naa li ma bëgg a wax lépp du xaj waaye dama koy tënk ndax Sénégal jeunesse Sénégal bépp dañ leen a dugal ci guta te yëguñu ko te wallaahi guta gi ñu leen dugal bala ñu koo xam ñu dem dix ans ci kanam fukki at ci kanam ndax dañoo wax ne dañ leen di carrière emploi jox leen ay jakarta gone yëpp waroon a jàngi métier tey ñu ngi ci jakarta yi di dàq ay deux mille francs te waroon a am métier ñu waroon leen jox métier mu baax te mën nañ ko te joxuñu leen ko fekk dix ans ci kanam maçon duutu am électricien duutu am soudeur métallique duutu am parce que ñi waroon a relais gars yi ñu ngi ci Jakarta yi Sénégal dana dem ba mel ne Gabon di wutu ku ko liggéeyal fii da nga soxla maçon fii doo ko am parce que xale yi waroon jàng ci yëpp war cee tedd tey ñoom ñoom mijji dikk Jakarta yi ñu jox leen que ne dañ leen di créer emploi wallaahi dañ leen di man xam naa li ma wax ndax réew bi alhamdulilah bi nga xam ne yeewi askan wi judd na ndax lépp di nek nekk ñëpp nitu diine lañu te diine rek mo meuna defal Sénégal Cheikh Ahmad zian ci Maktoum dafa wax ne fa inna diina rasulullah fihi lana xallul mashakili dunyaha wa ukhra adina rek ak al akhirah diina yonante bi rek moko meuna defar ndax karat majahibha tasrib surhatiha sayra sawarikh adnaha wa aqsaha ñu meuna hasib xaasi haasi bi harratiha haasi bi humratiha haasi bi wustaha haasi bi sulmatiha is yaskunoolu laha akrim bi sulmatiha akrim bi su bi sukunaaha te ma gis na ñii ay nit yi dina lañ maire yëpp ay nit yi dina lañ ñoom rek ñoo mën a relais réew mi dox li ma wax xam naa ko ndax man maa ngi doon tukki di moodu moodu di liggéey fu ñuy wax mbaan depuis 2008 maa ngi créé emploi 50 personnes sama gannaaw jusqu'à aujourd'hui sama entreprise maa ngi fay 50 personnes teg benn autorité musuma seet kon liggéeyaluñ Sénégal buñ doon liggéeyee Sénégal doomu Sénégal yu créé entreprise bu toll noonu la seet waaye seet wuñu waaye nañu taxaw seen yi na ngeen taxaw na ngeen takku jàppale Yewwi Askan Wi ñu bale fi nekk lépp ndax Serigne Cheikh nee na lënd bu ñëwee sa néeg day lënd ay bis mais boo soxlaa nii ba sa baaraam ngay lonk rek sànni ca àll ba nañ leen def noonu mu jeex parce que bu ko deful. réew mi dugg na si guuta te guuta gi du jeex bi ma bëgg a jeexale mooy boroomi xam-xam ñoo fi nekk suñ référence sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Maktoum la dafa am lu waxoon fal ilmu wal xanuunu wa aqlu zaki wa raxyu wa tadbiru wal ihraamu kullun yaqumu bi dawrihi fi dillihi wifqal masiata ma utiya qiyam xam-xam yëpp baax nañ waaye nag man lam yaxudda muhammadan fi ilmihi fal ilmi fihi qasaratu mamalaam yonente bi ku ko limaalu sa xam-xam te xam-xam du dara dañu ñul dara تسافر الأدمي والسلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله رفعتنا